asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne ñoo ngi safo TMS TV ñu ngi leen di jaajëfal ci kóolute gi ngeen ñu jox tey nag dañ leen di demal fi nga xam ne moo di daral Sénégal yi parce que ni ngeen ko xamee tabaski jege si na ay fan moo ci des dañu fas yéene nag demal leen ci daral li xooral leen xar yi li ñuy jar waxtaan ak clients yi waxtaan ak ñuy jaay fas yéene nañ jaar place yu ba xool ba xam xar yi fu ñu tool sëñ bi na nga def euh, ñu ngi lay nuyu vraiment di la dalal fii ci TMS TV naka la tur bi. tur bi Bathie Touré la ñu ngi leen di fay bu baax waa TMS TV. ñu ngi leen di fay. fekk la fii sa place mu mel na yow yaa ngi jaay xar yaa moom place bi. waaw xar la demee ren ndax xaru yar la wala yan façon yi moom xaru yar la mi ngi nii bergerie bee ngi nii ay xaru yar la quoi depuis très longtemps ñoo leen yor kër ga. tabaski bi à l'approche de la tabaski ñu indi leen fii bëgg leen jaay mais prix moom ça varie entre cent mille ba sept cent mille francs quoi. am na cent mille ba am na sept cent mille waaw am na cent mille ba moom xanaa ban boobu. waaw boobu laadum la bii jaar sept cent mille moom laadum la moo nekk nii surtout Bachir la quoi. pap moom moo waaw moo nekk nii waaw. waaw waaw waaw. yi jaar cent mille nag moom yàlla. yi aussi yu xaw a yamamaay la quoi yu ndaw yi. xam nga rek dëkk bi dafa metti ak coronavirus bi gars yi amuñu xaalis da leen di indil ay loo xam ne ay prix yoo xam ni am na ñoo xam ni seen doole tollu na fa am na ñoo xam ni aussi tamit da nga indil loo xam ni mën nañ ko jënd mënoo ñëw rek indee noo yëpp xar yu mag yëpp xar yu da nga leen indil yu ndaw yi aussi yi nga xam ni seen euh, loxo jotul seen ginnaaw ñu mën a am quoi ñëpp mën a tabaski si jàmm noonu la demee quoi moo tax am na 100000 100000 bi sax boo ñëwee am na ñu muy demee yenn négociation yi ñu wàññi noonu lay kii moom suñu jigéen la Aïda la moom xam nga jigéen ñi léegi ay jàmbaar lañ moom moom moom bergerie bi li ngay gis nii yëpp moo ko fi takk di ko jaay chaque jour ñoo fi nekk toute la journée mooy indi añ yi lépp moo koy def fii non day jaay xar mi ngi nii xar yi yëpp moo ko moom yëpp moo ko yar ko fii mi ngi nii Aïda la tudd soxna Aïda na maa ngi fi sëñ noo def Fall la Fall mhm. yi xar yi non tuuti rek cher na tuuti rek waaw. Mhm. waaw euh, lu ci mel ni bii comme bi euh, mi ngi jar deux cent cinquante voilà waaw ak bii aussi ak bii waaw. la waa deux cent euh, ba am na tamit yow deux cent trente. foofu la yem waaw. de deux cent trente voilà amoo xaru cent non non xaru cent ah, amul. voilà yaa ko yar wala dañ la ko yaral. waaw maa ko yar. waaw am na yu ma yar am na yu ma dem jënd tamit indi ko. voilà amiin amiin amiin. waa métti na nag tuuti métti na tuuti waa ñi ngi waa ñu ngi ci ñi ngi koy gérer waa ñi ngi ci xaar tamit ndimbalu état bi voilà. mbokk internet yi nga xam ne yéenay safo TMS TV yéen ñi nga xam ne vraiment yéen ñuy safo di seetaan saasu ne tey nag bu ngeen bu ko xamee ñu dañu xëy rek. daal di leen demal ci nga xam ne fooy mooy place yi nga xam ne fan lañ jaayee euh, xaru tabaski jot nañu jaar jàmmalaay ñëw nag fii nga xam ne mooy stade Léopold Sédar Senghor di stade Amitié ni ngeen ko xamee chaque at at bu nekk di ngeen di gis ne fii day bëri xar trop mais ren nag dafa am organisation bu spécial parce que lan moo ci spécial moo de nguur gi dafa jël ay ay ay tente ànd mu ko tuddee ko gétt der def ay tente daal di koy loué ñi nga xam ne ñooy jaay xar il pare sax que dañ leen a financé daal di leen jox xaalis ñu daal di jëndi xar ngir rek jaay nu ngeen ko gisee gis ngeen xaru yar yi bëri nañ fi trop xaru malien yi aussi am nañ fi mu am organisation bu spéciale am ay tànt fu ne léegi nag dañuy daal di continuer rek daal di laaj clients yi nga xam ne ni ñoo fi ñëw daal di laaj ñi nga xam ne ñooy di jaay xar yi daal di dem aussi ci waa maliens yi laaj leen aussi ñoom tamit prix xar yi naka la demee donc nu ngeen koy gisee ñu ànd ak yéen continuer ci reportage bi pour wan leen li nga xam ne xar yi ñoom lay jar fii ci Sénégal. maa ngi tudd Moustapha Diédhiou dekk unité 26. di ak jàmm doon fii ci TMS TV. Hmm. ñu fekk la fii euh, ci sa euh, hmm. maa ngi dëkk unité 26. yaa ngi yàlla. ko yaral sa bopp maa ko yaral sama bopp euh, sama xaalis laa ci dugal dem banque leb ji jënd ay xar di ko yar. sa xar yi prix yi euh, de trois cent cinquante à trois cent cinquante. ci gën waaw waaw. ñu gis ay xar gis euh, donc waaw état bi am na lu ñu ci def euh, ci jeunes yoo xam ne ni dañoo bëgg a yëngu ci liggéey bi euh, financé na leen xaalis moo waral DER bii nii bi ngeen di gis nii bâche yi nii ngay gis nii ni di DER yi yëpp moo financé ay nit ñi jënd seen xar ñëw war ko exposé fii nii pour jaay. moo ñu tàqale woon léegi dem naa na ko bu ko defee juróomi téeméer ci lépp jël ci taxi ñibbi loolu rek moo ñu tàqale waaw dañ ciy jël taxi ñibbi rek ci juróomi téeméer yow tam def ci yërmande bokk man de yërmande laa ci def parce que fi mu ne nii xar xar mi xar mi dañ ko waxaale 85 ba pare waaye kooku dafa dem nee na dafa manqué xaalis mi ngi dem ñëwaat xar mi 85 ngeen ko 85 lañ ko bëgg man bëgg Fallou tudd Kastoor laa dëkk. waa nga ñëwoon fii tey xool si xar yi mel na da nga bëgg a jënd xar naka la xar yi demee prix bi yomb na wala yombul. xanaa seer lool nag te mbas mi waroon naa tax rek mu wàññi xar yi. mbas mi waroon na tax mu wàññeeku mais wàññeekul yow nga laajte donc prix bi nga gis ñaata lañ lay faral di wax. ñoom koy ay 200 la ñuy wax ak 250. Ah, ah. ma laaj kenn waxu la ci 100000. déedéet kenn waxuma ci 100000 fay naa xaru 100000 waaye nangoo gud maa jaay de. mel na yii du xaru yar ay xaru pël-pël la mais est-ce que seere na noonu. waa seer na kay parce que xaru yar yi ma njëkk a gis fi ay 300000 lañ doon moo taxoon ma ñëw fii ci pël yi. mais ñoom luñ lay wax. 200 lañ may wax premier prix. xool nga bu ci gën a yomb aussi. ci gën a yomb nee na ñaar fukk la ñuy jar. gën a yomb bi ci gën ndaw waaw te man fay naa ko ñaar ko 100000 yi xam ne ñoo bëgg xar lan ngay ñaan aussi ñuy jaay xar. ah ñu jaaxaar nañ ko wàññi rek defal nu ci taw féex rek ndaxte ñun ñëpp ay jullit lañu te bis bi lañ doon ñaan fekke ko kon yàlla na yàlla def xéewal rek ba kenn ku nekk am xar ndaxte góor a jigéen a ci am nag yërëm naa góor ñu lool ndaxte lii metti na daal ci jaboot. abu Abouba laa tudd waaw maa ngi jóge man fii la Dakar laa dëkk waaye xar ñu ngi leen di jëndee ba Mauritanie jógee Mauritanie jaar Mali jaar Mali doog a dugg senegal dafa mel ne ay camion xar waaw ay camion xar la ñu indi. Ah, xar xar yi prix bi moom xaw na yomb xaw na xaw na dang tuuti parce que boo dégg ma ne xaw na yomb euh, xar yi am na yu jar cent mille cent dix ba cent cinquante waaw am na yeneen xar tamit yu jar quatre vingt cinq mm-hmm. mais clients yi ñoom. bu dee ñuy ñëw yor quatre-vingt-cinq bëgg xar cent mille wala xar cent dix mille loolu moo tax waxaale mooy metti bu gën a rëy voilà bu ko jëndee lu yomb te loolu moom xam nga day doy waar. est na tabaski. waaw mën na fokk na ñaar xar bu fokkee ñaar rek mën na tabaski waaw ci ci li ñu wax. waaw. mais seen nekkin fii hmm. bi dañ leen ko wuñ ko dañoo ñëw rek parce que avant avant kii bi dañoo ñëw laajte ñu jox ñu fi ay numéro place bi ay numéro la. Hmm. da nga ñëw joxe doo joxe dara. waaye am na ñeneen ñu ñëw si ginnaaw ne xam nga ñun sénégalais ni ñu mel rek ñëw bëgg am dara naan di ñëw di wax yeneen wax mais comme que ñun yàgg ni ñëw dara yooyu moom duñ ci topp. saako ngooñ moom cin mille ndox mi tamit dañuy jënd barigo 1000 francs waaw moom la ñuy jënd waa moom la ñuy jël gar moom ñun suñu bopp suñu sàmm yi ñooy garder waaye kii day fanaan noo xool bu sonnee yee ñeneen ñi ñu ñëw waaye am ñu benn sécurité benn sécurité tamit gis ñu ko fi de fii moom amagut peut-être euh, peut-être fi comme que des na 10 jours affaire yooyu mun na mun na am am waaw. maa ngi tudd Doudou dëkk Sicap Liberté 3 waaw. mel na da fi am ay baaru xar di jaay xar ñaata fan ngeen fi def. waaw ñun fii suñu place la quoi fii léegi ñu ngi fiy bëgg a yàgg waaw fii daanaka léegi mu def ay dix ans chaque année fii lañuy jaaye ko bu ñu génnee xar yi ak léegi war na def léegi un mois quoi waaw. xar yi fu mu toll yomb na wala yombul. waaw am nga ay xaru yar la ñuy jaay moom xaru yar moom ku ko dégg moom xam nga ni du yomb quoi. waa xaru yar moom ku ko dégg moom du yomb quoi. xar yi moom macha allah rafet na moo ban moo fii fourchette bu gën a yomb moom cent soixante mille la yem. waaw foofu la commencé jëm kaw quoi. donc moo ci gën a cher comme ça xar bu fi gën a cher su ma daal quatre cent mille la. quatre foofu mooy. barab yaa ngi commencé cent soixante dem ba amoo laadum wala yi jar ay sept cent mille. wax dëgg yàlla ñun amuñu xar yi jar sept cent mille ak cinq cent mille quoi. jaar ñu wax mu xaru waaw foofu la ñu barème bi foofu la toll ko waaw Mouhamed Bachir. Mouhamed Bachir yaa ngi Liberté 3. ñu fekk la fii ci Mbaaru Xaar. waaw ak jox xar lekk maa leen di mélanger may ay vitamines maa leen di vitamine yaa leen di sang. waaw donc moo fi sa bi laay ñibbi après guddi bi day am ñuy monté mbokk internet yi mbokk téléspectateur TMS TV lii nag lañ leen ah, jëlale woon ci dara li nga xam ne moo nekk fii ci Dakar précisément jaar nañu fi nga xam ne moo di jàmmalaay jaar fi nga xam ne moo di stade Léopold Sédar Senghor dem ba Liberté 6 ngir rek xoolal leen prix xar yi kon noonu ngeen ko gisee noonu la fa demee pour le moment léegi nag peut-être fii ak ay fan prix yi mun na gën a wàññeeku mais ku ci jënd xar daal boo xoolee li nga xam ne moo di reportage bi di nga xam prix yi fi mu toll donc ñu ngi leen di jaajëfal ci seen kóolute ku ñuy liggéey chaque jour ngir ngeen kontaan ngir euh, satisfaire leen ku mu nekkoon seen télé TMS TV di ànd ak yéen saa su ne ngir nag gindi leen wax leen li nga xam ne moo nekk ci Sénégal ñu leen di jox dig daje ci beneen euh, reportage